Et euh, bonjour c'est qui ça asalaamaaleykum sama gars yi bëggee naa leen j'espère que yéen cool te nag euh, bu leen gisee ni ma defee vidéo bi ngeen xam ne c'est juste dañoo bëgg am lu ñu leeral lu ndaw euh, lu ndaw ndaw ah, du yàgg dara yéen moo ko gën a xam kon boog sama gars yi ñu dem seetaan vidéo bi te ñëwaat mën cee commentaire bu baax a baax a baax. kon nak def naa video bi ñun ñepp ñoko gissando euh femme bi ku yabaté la xam nga pourquoi parce que ñimi taxaw di saga non dafa wara xamné amna ñuko ci mat ñimi taxaw di saga non dafa wara xamné amna ñuko ci mat papa wala amna ñuko ci mat yaay mu nekk fi di taxaw di dag ay saga nan ku taxaw fi bay wax ñu ñuus la quoi xam nga respect mom nit bu ko bëggé mom mo koy may bopam ki mérité wu respect femme bi femme bu yabaté la ki ku xamadi la. wallaay lazim mu taxaw di jéem a osé naan ku dëkk fii ñu ñus la man man man Sénégal li man franchement li ma naqari neexuma quoi ndax genre nit ñu mel nii ay seetaane lañ seetaane yi bon lañ wóor na yàlla. li ñuy def dara sofu leen ci muy def ak bëñam génn yi mel ne rato bu jaaxan quoi. yow du ma nekk sax di yàgg ci yow di yàq sama ngelaw gémmiñ li ci des dinaa bàyyi ñuy commentaire yi àggale ko. ku nekk li nga denc sa xol dina la ko yàq incha allah. mais c'est bizarre. defe naa ne toogal foofu ba la fi gars yi fekk rek bu la fi fekkee di nga xam ne réew mi moomoo ko te sa bàyyi moomu ko. di da lañ naan njóobanoo sant mun a wele. ma continuer ba tey ci wax ji di am benn mot boo xam ne maa ngi koy dénk ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite fii Sénégal terroriste amu fi man de daal am naa droit wax ne fii gis ma fi terroriste. ndaxte dégg naa loi bi ñu nar a voté tey assemblée bu jàllee ëllëg kenn du fi narati kas say doléance maanaam am lu la metti nga koy dox dox ñaxtu du fi amati ndaxte boo ko defee mu ne la jàpp te mën nañ la mandargale terroriste te ba lañ caa àgg askan bi nee nañ d'accorduñ ci bëgguñ ñu voté ko kon nañ ci deltu ginnaaw ma amaat benn mot bu may wax ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk réew mi yéen la yàlla dénk réew mi d'accord mais bu leen yàlla dénkee réew mi da ngeen di delloo si seen xel delloo si seen xel mooy ngeen déglu peuple sénégalais bi déglu réew mi ndaxte kat réew mi dafa jógewoon ci ay loxo ñëw ci seeni loxo te day yàgg rek mais dina jógewaat ci seeni loxo dem ci yeneen yi loxo kon bu ngeen fiy def nga la def leen fi loo xam ni bu ngeen fiy jógee mu nekk jógin bu rafet ndaxte kat yàlla mayewul daa dénkaane juñu nag doy na borom xel loolu rek laa amul lu ma ciy wax. dëgg du rombi nopp. waaw Ousmane Sonko coow li may dégg tey moom lu mu demee noonu. waaye mënumaa permettre sama bopp di ñëw assemblée ñu may provoqué wala ñu naan dañuy dal sama kaw. ñan ñoo lay provoqué. kenn ci ñoom nga xam ne yàgg na maa menacé fu ne. Ah man de damaa jékki-jékki ba ci yàgg rek dégg ñu naan am Ousmane Sonko indil Ousmane Sonko jàppal Ousmane Sonko Ousmane Sonko ngay xeex. parce que loolu seen pexe la dañu ne waa ji su ñëwee. te ay ndigal yu ñu leen jox la bu ñëwee provoqué leen ko attaqué leen ko xeex leen ak moom bu ko defee sénégalais ne Sonko ngi xeex assemblée comme ça ngeen casser image am. mais bi nga xamee loolu lu tax moytuwoo tamit. loolu nag boobu ba léegi ñu ngi koy moytu. mais nga gën a moytu rek ndaxte dafa rëyutul ñu naan diw ma ngay xeex ma ngay jàppante fee te nit ki boo bëggee dara da ngay moytu di soral di jéggelé di jéllélé di bay lu bari donté sax fi Sénégal la ñëpp xam nañ ni mi yang mais moytu dal gis nga ne da cey gëna bax tank may xass yaa may saga yaa ngi may tib dina teunk sama xol muñ ko. lolé lu bax sax. waye nga ñëw né da nga may attaquer physiquement wax dëgg yalla tologuma fo xamné gis na goor yalla go xamné ak no muñ ti toll di nga ñëw attaquer ma physiquement ma sétan la. attaquer attaquer doomu adama mom ci tooñ la bok te yalla suñu borom du faral kuy togn gi du rombi nopp Ousmane Sonko man kat dafa am luma la bëggoon laaj mu xeex bi def machine rek yàlla def na duma naa futti naa ko fekkewul sax euh, séance bi nga ni <laughs> pourtant mënoon nga ko rek fàtte naa sax yàlla du faral kuy tooñ man de fekk ne tànk bi nga koy action bi nii la demee. kon boog gaa yi vidéo bi loolu la woon ah? waaw tey moom Ndoye Ndiaye amut suba incha